jigéen ñi ak yàlla sunu nettal tey ji mooy dekkal nañu doomu jigéen ja jëkkëram dee nettali bi mu ngi cosaanoo ci luk saar juróom ñaar aaya fukk ak benn ba fukk ak juróom ñaar saar fukk ak ñett aaya fukk ba fukk ak juróom ñaar yowaana saar fukk ak benn aaya ñaar fukk ak juróom ba ñaar fukk ak juróom benn fu yeesu gisee ay nit ñi nekk ci soxla daana taxaw ngir dimbali leen kéemaan yu bari ya ak njàngaleem ma taxoon nit ñu bari toppoon ko lu yàggul rekk yéesu fajoon na surgaab xarekatu waa xarekatu waa Rom ba gëmoon na ne dina faj surga ba mu wax ngëmam ci yeesu bi yeesu déggee li mu wax mu waaru te ne mbooloo ma maa ngi leen koy wax ngëm lu toll nii gisuma ko sax ci Israël ab diir bu gàtt gannaaw loolu yéesu dem ci dëkk bu ndaw bu ñuy wax Nayin ay taalibeem ak mbooloo mu bari topp ko di déglu li muy jàngale noonu njub si buntu dëkk ba mu amoon fab rob bu doon génn dëkk ba ngir dem fa ñuy denc néew ya kii dee a waxambaane la woon te mu doon kenn ci ndeyam ndey ji dafa ñàkkoon jëkkëram ñu doon jooy ak yuuxu ni mu doone woon seen aada bi Yuusu gisee jigéen ja ak naqaram ak doom ju góor ji mu ñàkk mu yërëm ko noonu Yuusu dëfal xolu jigéen ja ne ko bul jooy yéesu dem ca jaat ba laal ko góor ñu yoroon jaat ba ne tekk taxaw yéesu wax ak néew ba ne ko waxambaane bi man la jógal ca saa néew ba jóg toog tàmbali di wax ak nit ña Yeesu delloo xale bu góor ba ndeyam ndey ja waaru nit ña ànd ak ragal tàmbali di màggal yàlla ñu ne ab yonent bu mag feeñ ci sunu biir yàlla ñëw na ngir dimbali mbooloom noonu mbiri yéesu tàmbalee di siiw ca gox ya beneen yoon ci ab màggal Yeesu doon na jàngal ca benn jàngu yawut ab jigéen a nga foon bu rab jàppoon ba mu xuuge amoon na fukki at ak juróom ñett mu nga sëggoon te mënul woon sigi bi ko Yeesu gisee yërmaande jàpp ko mu woo ko ngir mu ñëw ci moom mu ne ko jigéen ji goreel nañu la ci sa làgg gi noonu mu teg ko ay loxoom ca saasa mu jóg taxaw tàmbaley màggal yàlla ndax yërmandeem ñeen ca nit ña foofu mer ndax li yeesu faj ci bésu màggal njiitu jàngu ba gëdd yeesu ne ko mën nga faj ci juróom benn fan waaye du ci bésu noflaay bi yeesu tontu ko ne ko yow naafeq bi ndax du ngeen wëgg seeni jur ci bésu noflaay bi kon ndox doomi ibrahima ji te seytaan noot ko fukki at ak juróom ñett kenn du ko goreel ci bésu noflaay bi ci li ko doon noot ñi doon diingat yeesu ruus waaye nit ñi gisoon li mu defal jigéen ja bég lépp li rafet li mu doon def fii la nettali bi yem nanu jàng aaya bii te ngeen yennee ko ci kawam seen njàqare jépp ndax ku leen ñeewante la benn Pierre saar juróom aaya juróom ñaar walla saboor saar juróom fukk juróom aaya ñaar fukk ñaar